salut maître ça va yaa ngi ci jàmm maa ngi rafetlu sa invitation bi ak sa xol bu rafet bi moo tax ma teew sinon sama xol bi nekkatul sax si xale bi jigéen bi nga xam ne dundite dara sama góomu xol bi ma yor góoma sax dina mës wér ci àdduna mais une fois de plus merci. Modou ci li loolu nekk ba yaa ngi am jàmm. non comprendre naa la comprendre naa la bu baax a baax mais convocation bi dama ko def pour trois xale bu jigéen bi nag xaw ma nag dina ñëw wala déet mais en trois laa ko def pour ñu mën a gën a toog waxtaan ndax bi ma ko mujjee dégg daf ma manqué de respect trop même hmm. Fatou nag moom woo naa ko ni ko mu connecté Uh, J'espère que dina connecté pour participer parce que nee naa ko ñun trois ñoo ci war a mën a waxtaan maa ngi mu wane si maître ça va non def yaa ngi si jàmm bu baax maa ngi bu baax si la dernière fois bu da ngaa jàpp ne dama de respect maa ngi jégalu bu baax mais tey damaa ñëw même su fekkante tamit da organiser réunion bi sama décision moom jël naa ko ba pare. maître xoolal rek li ma lay wax nii ngi keroog dama laa pour ñu waxtaan premier jour bi pour mën laa expliquer mais kii nii profil bi ma def nii xoolal lii lii yëfu caga rek la lay nduróol yëfu caga kese lay nduróol lii du respect kii man premier jour bi ma nga xam sax dama ko regretté man sama sañoon dama ko mës a xam sama àdduna cinq ans ngi nii maa koy jàppale di ko dimbali chaque mois ay parents dama leen yónnee xaalis ay frères am maa leen fayal jàng école mais xoolu ci dara lii gisul dara man de damaa yaakaaroon ne maa ngi defar sama àdduna mais nekk te yow sama bàmmeel laa doon gas waaye yàlla baax na. xoolal Fatou respect rek laa fi bëgg ndax fii awma dara lu ma fi gagné surtout ak cette ci kon doxalal respect Modou s'il te calme-toi fii amul dara luñ ci mënul régler dalal rek woote bi baax na Modou yow doy na yow dafa doy boobu ba léegi yaa ngi wër ci wax ci àdduna bi yëpp que ni dag maa defal lu baax mais kenn du def lu baax ba pare wëlbati ko di toogaat di ko wax fu nekk àdduna yëpp xam nañ ni yaa ma doon fayal fayal samay rakk yor samay waajur dafa doy en plus yow ngis li nga doon def ngis tel la te yow yàgg nga xam ne sax yow doo sama genre yow yow nekkoo sama style yow te yàgg naa la ko wax Ah, oke tay nga mëna taxaw na man duma sa genre ba nga deug parce que da nga motax ni men man mako def man ma def ni nga men ci yow waaw bo mene ni bu mëna taxaw di wax man ma tax ñaata million la pet pour yow sen wa kër yeen ñep ah des centaines de millions ah nga yow mëna taxaw tay na man duma sa genre man xawma sa ban genre ndiro sa pap ndiro sa yaay yo sai fere sax sey sa ñoo la gën nga nduro sé yo da mel saraxu kër gi nga yow me yow xara sax nga ne man defalu ma dara yow sa papa auto bu muy dal ko moko jox do lay laaj sa ya biti bu muy tok non ah man mako jox mu siy ay power ay laaj man mako financer ha ba ah, pare le nga may wa taxaw fi di wax sa tuba bi la la defal bo bele sa ya muy la yam mënul fexe ba avancé man yàlla rek moom bëgg moo tax mu tellement xibil bi ma xam fu may teg sama tànk parce que yow doo sama genre man yow mi yaa nekku sama genre moo tax mu tellement wan yow la kan en tout cas loolu neex defar defar loolu neex mi na su tubaab bi ngay diisoroo nii di fii la lay bàyyi dem bocc nga toog di souffrir yow kase boobaa di nga xam ne du man maay ñëw di la si hey hey Fatou dama bëgg nga dal dalal yow kii nii muudu mi tey jii bu fekkoon ni jëlal sa frère nga teg ko à place am mais yow nan ngay doxale kon bu boobaa du la metti amal dal amal yar sa kan bêtise yu rëy yi nga def moo tax tey ñu nekk fii pour trouver solution ngay jaay lamine bu rëy da ngay dal ah xamal lu ma lay yëgal maa ngi ñoo jote génn ci samay waajur sama papa na nga ko jox cër sama yaay na nga ko jox cër seen yoon nekku ci man ak yow ñooy wax donc bul manqué de respect samay parent en plus yow dafa mel ni danga ma sëriñ Tuubaa am ma yow comme si que ma maa sëriñtu yow gis nga ni ma mel moodu xool nga ma kaw ba suuf man ku dul yow sax joomu ma te bu keneen ñëwoon nit lu raw li nga ma defal la may defal yow lan nga ma defal bay toog fii di wax hmm. yow maître yow muy wax yow est-ce que yow boo nekkoon na ko bëggoon di nga toog ak moom bu doon yow la di ko def en sax man maa ngi tëdd ñu fanaanoog jaam ndax tooguma fi di wax ay bitis yoo xamante ne amul bopp amul geen li am am na ba pare jeex na jeex na na ku ne aw yoonam moo dul na jàll ca xaj bëgguma la man maa ko wax bëgguma la stop don't talk to me like that lu la jégal du ma sa morom dama jur doom yoo xam ne ñoo mag fuuf en plus léegi mënoo koo xam suba ngay comprendre ndax li ñuy def nii wallaay mënoo koo xam. ah maître lii yëpp waxoon naa la ko dama naan kii jaru sax sonal sa bopp mooy loolu du nitu dara man daal maa ngi lay ñaan leen rek sama frère sama sœur yi lii yëpp nga jàppale leen si nga gide leen wan leen yoon bi ñu ñu bañ a def benn erreur boo xamante ne nii man mii def naa ko. loolu rek laa lay ñaan waa lii moom jàng naa si leçon bu baax a baax élève bi moom dootuma dal di la ñaanal rek ñu fanaan jàmm